الأسار عن الأنا والأذى بالشكر والبشار أناني الله رب الجن والبشر عن الأنا والأذى بالشكر والبشار أناني الله رب الجن والبشر

ñëwoon fii tey ci délégation boo xamante ni président de la république moo ñu yónni délégation bi nag euh, ràññee nañ ci ministre yu bari te loolu dafay wane solo si nga xamante ni président jox na ko li xew mu doon loo xamante ni lu tiis la ndaxte dara gënul metti ngay liggéey di daan sa doole di ñaq nga xëy nga xëy suba lu tiis bu mel nii dal ci sa kaw. la république nag bi mbir mi amee. dafa ni na ngeen dem ngeen masawul ma sëriñ bi waaye ginnaaw bi ngeen ma masawulee sëriñ bi nga xamante ni mbir mi ci njabootam gi ñu bokk la dal maa ngi leen maa ngi lay sant nga masawul ma commerçant yi nekk ci marché bi yëpp masawul ma marchand ambulant yi ak képp kuy liggéey ci marché bi te yàqule mi ngi lay masawu fi mu xeetu masawu toll su fekkoonte ni mate na ko ku ne ci yéen dinañ jël suñu tànk dox ba fekk sa cantine fa nga nekk wala sa kër massawu la euh, wax la li nga xamante ni mooy yittey état ngir defaraat bërëb bi loolu nag président jël na ci dogal li mu wax mooy service su état yi nga xamante ni seen euh, liggéey yëpp jëm na ci li lijjanti wàllu kaaraange wàllu defar marché ak wàllu liggéey ci commerce ñoom ñëpp jot nañ ndigal ndigal li mooy te loolu gouverneur tàmbali na ko doxal ndigal li mooy dinañ ñëw xool li nga xamante ni yëpp war nañ ko seetaat war ko defaraat ba nga xamante ni bu marché bi décision bi mu jël ngir defaraat marché bi bu ci noppee dinañ gis beneen marché ndax marché moom lenn rek moo ko tax a jóg liggéey liggéey ngir ñaq jariñu waaye liggéey ngir ñi nga xamante ni ñooy ñëw di fu daw di fa wut si euh, seen yitte su ñu ñëwee jënd ñu jaay leen marché moom ci économie lieu d'échange commerciaux la te vecteur de dynamisme économique la looloo tax a jóg marché loolu nag mënta sotti mukk te lépp ci wàllu sécurité matewul wàllu sécurité boobu moom euh, président leeral na dina ci taxaw baax li nga xamante ni tamit moom laa ciy dolli mooy euh, xam na ni mbir mi metti na te ku daan xëy di liggéey di ci ut dépense di yóbbu sa kër boo dee toog nga ba mënatoo ko loolu dina indi tuuti sooxe ci sa doxalinu kër mu am ndàmp boo xamante ni nag tàmbali la rek waaye dama koy wax maire bi ak délégué bi mu jox leen ko massawu leen ci kooku daf leen ci massawu nga xamante ni di ngeen ci xaj na mën a dépense ay fan diggante fii rek ñuy xool nan lañ koy lijjantee am na benn lim boo xamante ni président waxoon nañu jàppale leen ko waaw léegi nag loolu maire bi ak délégué bi ak ñi nga xamante ni yéen yéen ko kii euh, euh, cinquante million la ngeen xool pour ay dépense pour ay dépense lu leen jàppale ndaxte ku mënta dem koo xamante ni mënatoo dem sa bërëbu liggéeyukaay dina xaw a metti ngir loo jël yóbbu sa kër waaw. loolu loolu loolu daal moo doon euh, kaddu yi di leen masawu di leen masawu baax xam xam ni président mi ngi seen wet gouvernement bi ngi seen wet et képp ku dégg li leen dal am na lu ko naqari ci Sénégal. waaye nag li ma ko waxee woon ci njëlbeen gi rek sëriñ Muntaxa leeral ñu ko jàmm moom saa yu dogal dikkee ci moom li ko war mooy mu ne alhamdulilah waa ginnaaw bi mu waxee alhamdulilah nag doomu aadama li ci tegu mooy day jublu ci jéem a joyanti lépp loo xamante ni euh, mën nañ koo joyanti te loolu it ñu ngi ci compter ci yéen ndax sapeur yi ak protection civile bi ñu ñëwee wax nañ ni am na yu bari yoo xamante ni war nañ ko xoolaat ci marché bi yoon yi ñuy